li ngeen ci aj lépp doon saafara waxoon naa leen fi ne ku bokk ci daayira bi maa man maa man ci dooley sëriñ Fallilou maa lay garanti danga delluwaat Sénégal te giñ naa ne loolu dara du ko dindi ndax pas-pas laa ci am ci sëriñ Fallou du man du man sëriñ Fallou la te li ngeen may jox taxul ma wax ko damaa xam seen ak cofeel ci sëriñ bi na sëriñ bi faj na sama bu yàgg. lottuma ci dara waaye lii ngeen def nag dafa rëy ci man te man awuma lu dul sëriñ bi li ma leen wax léegi du ma taxaw ci benn bunt ñu naan ma day day réunion day def leneen déedéet man sëñ bi rek sëñ bi rek laay réunion la kenn du ma dégg fenn bëgguma du ma dama ngir dara sëriñ Tuubaa laay tàllal samay loxo te lu ma bëgg lépp mi ngi ma koy defal te ci yéen ñii lay jóge kon fokk seen aajo faju ni sama aji di fajo jërë ngeen jëf sama xol sedna na seen xel dal te bu ñuy ñaan lama da wax rek day mel jigen ju tim ab soxam diko sox mënul fep dugub wu ne mu jël ci kuram dooru ko ci day dëbb ci digg ba rek lu way soxla rek dog bi mom mokk na lu way soxla rek tibbu joxe rek ci des lu way soxla rek nako wax mustayil day am nak lool ki ñaan dafa am lo xamne dafa jombu ndax dañu wax ni yalla man lu ne waye du reey gëléem gëléem jaaxaral ko ab ñaankat it nak fa nga tollu ngay ñaané bu lay ñaanal deñ ci ben million bëgg ay milliards ci tang tang bi la xaw jafé <laughs> da ngeen di da ngeen di sét li nga xamne moy yitte ji nga xamne mo taxaw té nga japp ni lu jëntiku bu ñaané dans dana lijjantiku yitte ji nga xamne jàpp nga ne mënta lijjanti te nga bëgg ko mun na taxaw temm sa diggante ak moom suñuy ñaan sa pas-pas def ko ci da ko am na ko bëggee te incha allahu dañ taxawaat fii leeral ko bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatulah. ngeen seen na lool waaye aj leen fas leen ji rek gaa yi leen ko waaye doy. ku fi nekk di xam xamal ba ñàkk yaa xam.